asalaamaaleykum yéen Sénégal nekk Émirats Arabes Unis man la seen mbokk ma Mademba Yade fii ci Dubaï maa ngi gërëm toute la communauté sénégalaise soo nekk seen Ibrahima Sori Sala mi ngi masu communauté bi yëpp incha allah ci feebar du ñuy dund. di leen ni par rapport ak euh, sunu mbokk mi fi jóge woon ñu wax Babacar Diouf di président directeur général bu Alcarawan Cargo ba léegi xam ngeen ni semaine bi yëpp ñu ngi woon ci ko di waajal ci papier yeeg yooyu yàlla ci kàttanam nag incha allah yëpp daanaka léegi yemb na. incha allah ci kàttanu sunu borom euh, alxemes ci vol Emirates bi jóge fii ci dañ ko yóbbu Sénégal xam naa dinañ egg Sénégal incha allah euh, alxames ci ngoon alxames ci ngoon dana egg Sénégal ci kàttanu sunu borom waaw famille bi nag nee nañu ñoom incha allah dinañ ko denc ndax julli gi ba dimanche dañ koy jullee incha allah ca Medina ca Medina Baye à 14h bu ñu jullee tisbaar dimanche te Medina Baye ak 14h lañu koy jullee loolu la famille bi d' accord incha allah ñu koy gaaral nag euh, toute la population di wax tamit fii incha allah ci kàttanu Soxna suba ci àllarba ji euh, bu ñu jullee tisbaar rek dinañ ko jullee fii ci ci Dubai dinañ ko jullee fii ci Dubai képp koo xam ne yàlla mën na loonoo ko incha allah ñu ngi koy jullee fële fi ñuy wax mu xees na Sanapour mooy fi ñuy defee médical 24 euh, heures bi ca Sanapour foofu lañ koy foofu lañ koy foofu lañ koy jullee ci jàkk ji nekk foofu incha allah ñu ngi ñaan aussi tamit euh, sénégalais bu ëpp xam ne disponible na incha allah suba bu mu jullee si foofu tisbaar ndax bu ñu jullee tisbaar ba pare rek incha allah ci lañ koy ci lañ koy ci lañ koy jullee ñu ngi ñaan incha allah sunu borom yàlla na ko xare àjjana Babacar moom liñ ci waxoon yëpp bu defe naa ni benn wax bi la ku bari yërmande la ku bari njariñ la ku bari yitte la yal yàlla fay ko yal na yàlla ko fay ko fay ko ak euh, njabootam yëpp incha allah njaboot gi mu fi yàlla yal yàlla teg loxo incha allah ba ñoom ñëpp incha allah ñu set set seen bàyyi fan incha allah donc loolu moo tax ñu ko ñu ngi dugal léegi nag aussi tamit remerciement famille am famille bi nekk fii ñu ngi ñu ngi remercier aussi tamit toute la communauté Sénégal surtout son excellence euh, ci kad ci ci kaddu euh, ki nga xam ne moom la bokkal ndey ak baay ñu koy wax Aliou Diouf maa ngi dugal léegi incha allah loolu kaddu yi nga xam ne moom la Aliou Diouf sànni jëmale ko ci population bi nga xam ne par exemple ñoo doon toppatoo formalité yi yëpp incha allah ñu ngi koy dugal léegi léegi léegi incha allah ci kàttan suñu ci suñu kàttan suñu borom ñu ngi remercier ñëpp di gërëm ñëpp di sant ñëpp man la woon seen mbokk ma dem ba yàdd fii ci Dubaï asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatu